mbokk internet yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun di mhm. seetaan euh, Sénégal 7 mhm. waaye itam di nuyu suñu yaay boy Adja mhm. Jooja Jooda ñoo ngi lay nuyu bu baax euh, di am mbégte bu baax di teewaat ci euh, plateau bi ci rubrique bi ñuy tuddee kawteef macha allah jërëjëf ñu ngi koy kontaanee bu baax saa su ne nii la koy defee tey nag kawteef fan ak fan la génn waaw tey moom euh, kawteef mu ngi génn ci benn braquage boo xam ni mu ngi am fële ci euh, allée centenaire. Mm-hmm. Euh, benn benn policier bu ñu mm-hmm. raje woon ci fonction publique. ci fonction ci ak nationale. moom moo jiite woon benn braquage bu amoon foofu maanaam ak càcc gu ñu amaloon en pleine journée aussi. ah bon en pleine journée lañ ko amaloon. Mm-hmm. te li ci gën a graaw moo di benn boutique lañ ciblé woon benn caméra de surveillance moo leen feeñal. daf leen doon filmer waa ji yor benn pistolet mhm. ci loxoom dem dugg ci benn bitigu chinois boo xam ni euh, mu ngi nekk foofu ci allée du centenaire ñu jëlee fa lu toll ci quatre-vingt-seize millions déggal li waaw juróom-ñett fukki mi juróom-ñeent fukki million ak juróom-benn lañ fa jëlee. mais li leen feeñal moo di caméra de surveillance bi. waaye ñu fàttali aussi que ni euh, policier bi nga xam ni moo bokkoon ci boobule attaque moom aussi da fekkoon ñu rajee ko ñu dàq ko ci fonction bu police. Hmm. Euh, gannaaw bi ñu ko tuumaalee gannaaw bi ñu ko jàppee ci vol ak extorsion de fonds maanaam sàcc. ak luubal xaalis jàmbur section de recherche moo ko jàppoon. si soxo indi na ko de waaye gën nga koo yaatal. voilà noonu la mhm. demee nag instant bi nag euh, am na ñoo xam ñi leen identifié woon ay présumé euh, lañ arrêté six personnes la ñuy toll ñu ngi leen yóbbu ci euh, division des investigations criminelles. Mhm. ci dikk foofu lañ leen denc. loolu moo nekkoon kawte bi nga xam ni moo njëkk tey jii ci. émission bi. te libération fësal ko. libération libération nag moom moo ko fësal. Mhm. ci xëtam mu njëkk. mu def braquage en pleine Euh, aux allées du centenaire. macha allah waaye ndokk bañ leen jàppee. waaw jàppee loo moomul ba ko fa. Mhm. bi ci topp ban la. Ah, bi topp nag moo di euh, Vox Populi. Uh-huh. moom nag ci xëtam mu njëkk mu ngi doon euh, mi ngi doon fësal ci biir mi ngi doon fësal libération bu Diop Iseg. Mhm. moom mu ngi Diop nañ koo bàyyi. mujj nañ ko bàyyi. Mhm. moom nag li ko doon toppee moo di dafa dañ ko tuumaaloon que dafa am benn xale bu mu sàkk woon. Mhm. ba mu jële ca ëmb. Jeynaba mhm. voilà loolu nag defoon na bruit ci euh, réseaux sociaux yi. Jeynaba mhm. nekkoon xale boo xam ne di ans la am. mais nekkoon it aussi xaritu doomu Diop Isaac mm, di Abiba. Euh, gannaaw bi ñu ko tuumaalee loolu ci leen ko arrêté le 5 mars 2020. waaw ah, ginnaaw bi def na trois mois ci prison bi. léegi amatul luñ ko toppee wala dañ koo bàyyi. loolu non ba ñu ko bàyyi bàyyi bu néggandiku. li ñuy wax liberté provisoire waaw ñu ngi ko doon toppee euh, pédophile lañ ko doon toppee mhm. détournement de mineur mhm. euh, ak corruption Mmh. corruption de mineur loolu lañ ko doon toppee mmh. euh, gannaaw bi nag yàgg naa dugal euh, ay avocat yàgg nañoo dem ci chambre d'accusation bi ngir mmh. dugal benn liberté provisoire mais tey tey la ko yàlla dogal tey ji mën nañoo wax ni gannaaw bi mu koritee ci euh, prison bu rëbës tey mën naa tabaske ci ay mbokkam am na image yu ñuy wone sax mu ndeysaan bi mu jugee ci prison bi dafa dem ba jàkkaarloog yaayam lëngu ko ndax fee xat na lool te it jombul kenn nañ ci bàyyi xel jombul kenn mm-hmm. tey nit lu muy def lu ne nay nekk nay ñaan mu nekk jàmm tey ñaan suñu borom mu ko mm-hmm. li dal jób jomb ko li dal keneen jomb ko mm-hmm. nañu fàttali aussi ñi nga xam ñoo nekk ci prison yi nattu day am waaye lu mu ci doon àddina boo ci nekkee li nga xamante ni mën nga ko muy sàmm sa bopp sàmm sa image ba pare yërëm say njaboot daf ciy am solo surtout waaw loolu am na am na ci solo surtout aussi euh, nañu yërëmante nañu yërëmante waaye itam sa doom Euh, war nañ ko sam bu baax doom bu góor dikkee ne dama koy jël jàngal ko war ngaa xam seen condition la nekk. man xanaa xamoo histoire boobu duma ciy bëgg di wax mais ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen doom jox ko tamit nit. Mhm. waroon nañoo ñëw di saytu di xoolaat. est-ce que mhm. ànduñu woon ci loolu. dëgg la neexut a dégg nag. mais tamit sa dafa doy waar. Mhm. voilà loolu xam naa yaay booy moo mooñ ci gën a xam mooñ ci gën a xam lu yaatu. ndax njaboot la. Euh, njaboote na ay jigéen njaboote na ay góor. kon après donc noonu muy dayam. voilà voilà loolu la ndogalu yàlla la mais Diop tey jii euh, bénéficié na benn liberté provisoire te tey jii xam naa tabaski gi dina neex ci moom ndax mu ngi koy defee ca famem en tout cas kenn gënu ko de. voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. alors ñu dem ci beneen euh, kawteef boobu nag observateur moo ko def. Mm-hmm. l'observateur di euh, ëttu yenn kaay bi nga xam ne moo nekk ca fële ca TFM groupe Futur alors ñoom nag li ñu fësal tey seen xët mu njëkk moo di benn sénégalais boo xam ni dañ ko dóor ba mu faatu ca Maroc. waaw voilà. moom nag mu ngi mu ngi mu ngi tudd ci David Koulibaly la tudd moom nag dafa nekkoon ancien joueur. Mhm. Euh, ca euh, division xam naa loolu doo ko xam. Mhm. mais ancien joueur joueur la woon ci Italie. Mhm. Euh, gannaaw bi nag ci la nekk benn passeur mooy ñi nga xam ni ñooy jël ñooy jàllale ni ñi ci gaal gi. comme ça boo demee Maroc. diggante Maroc ak Espagne ñu jàllale la diggante boobu. ah loolu la rafetul. voilà noonu la demoon ñu door ko ba mu dee. dañ ko door ba mu dee moom ak keneen beneen sénégalais. Hmm. Euh, Cheikhna Sibi. moom moom rek moo ci gaañu. waaw moom rek moo ci gaañu Cheikhna Sibi moom dafa daw. wax nañ li waral dóor yi. waa wax nañ ko moom laay waaj a faram-fàcce nii. Hmm. maanaam ñoom dañ doon dañu doon jël ay ay ay ay africain di leen jëlee euh, Maroc yóbbu leen biir Espagne. waaw Espagne ak Maroc sorewul. voilà xam nga xam nga am na am na. am na dëkk bu tudd am na dëkk bu tudd Tanger Mhm. Tanger ak ak ak Espagne. 14 mhm. kilomètres la. Mhm. Tanger. waaw mais xam nga tey ji ci ci géej la ñuy jaar ngay nuyu sama mag ji. voilà ñoom foofu la jaar mais dañ daan joxe kenn ku ne 500 dirham 500 dirham mi ngi toll ci 300000 francs CFA. ci juróom benn fukki junni kenn ku ne moom nga daan joxe mais ginnaaw bu ñu ko joxee nag moom daf leen daan euh, escroquer escroquer. lu ñuy wax escroquerie. Mhm. maanaam daf daan daf leen dañ ko daan jox xaalis bu noppi mhm. moom mu luubal ko daw ak moom. mais looloo tax mu feeñ. xam tey nekk ci dëkku jàmbur moomoo ko te bokkoo ca dëkk ba. la ñuy mhm. dund ak seeni norme xamoo ko. yàlla kenn ñeewul kenn yéenewul kenn gaañoo. waaye nit da ngay nekk ci yoon ak dëgg. dafa am solo yaay. njub moo tax léeg-léeg di nga gis nit yor oto bu rafet. yor kër gu rafet. bu ko ñee de xamoo fu ko jëlee yor xaalis bu weex tàll macha allah. waaw or jamaa yi dàqee doole. Mm-hmm. yow ma nga xamante ne yaa ngi koy ñee yaa ngi ñee sa musiba. billaahi yaa ngi nelaw ba yandoor. Mm. waaye est-ce que moom yandoor na. waaw mi ngi noonu. loolu loolu loolu itam euh, problème la. Mm-hmm. mais tey jii bu ñu sukkandikoo ci ci ci xabaar yi nga xam ne moom la l'observateur joxe moom yoroon na ñaari appartement biir Casablanca mais daf leen daan daf leen daan nax ni leen su ma leen jëlee dama leen di yóbbu ba biir Espagne. ngeen nekk fa loolu itam waraloon am na yeneen Sénégal yu ko doon tëkku parce que ñoom tamit dafa jëloon seen xaalis daw ak ñoom. ñu Euh, ba ba noppi di ko menacé gannaaw bi nag ci la ko def ay ivoirien ivoirien yi di ko cherché di ko seet di ko seet ba gis ko mu naroon jugee euh, euh, Tanger mhm. nar a dem Libye ci frontière Algérie bi ci lañ ko mhm. jàppee bi ñu ko jàppee dañ ko kidnappé yóbbu ko ci benn benn front benn forêt mhm. maanaam benn àll ca lañ ko cëlañ lañ ko ca lañ ko dóore ba mu mujjee ñàkkee bakkanam mais du du du naar yi ñoom ñoo def loolu. non nekkuñu ñamu ña jëloon seen xaalis ñoom ñoo ko dóor. waaw ñi nga xam ne moom la jëloon seen xaalis ñoo ko dóor mais neexul tamit tey ji suñu suñu compatriote la suñu mbokk la. Euh, dañ koy voilà voilà mais. parce que xamul nan la ñu def ba ba jox ko xaalis. voilà tooñ du galaaj mais ay ay ay ay ay nit ay africain bu ñu jógee ngir wutu teraanga jóge seen dëkk mu sori lool ñu jànkoonteeg lu métti. Euh, liggéey ba am benn sagaro trois cent mille francs di ko jox la ko ngir nga jàll leen donte sax géej gi baaxul euh, nga jàll leen nga jël seenu xaalis lekk ko. Mm-hmm. loolu itam jàpp naa ni bu fekkente ni am na yeneen sénégalais yoo xam ñu ngi koy def nekk foofee ca Maroc. ñu ngi leen di sàkku ñu ñu bàyyi ko te dem liggéey ñàq jariñu mm-hmm. en plus ñu bàyyi ñii ñiy jël lii bi gaal bi yow Abdou Khadre ñu mm-hmm. bàyyi ko mm-hmm. parce que mën nga caa dem yegg mën ngaa des ci yoon bi te amaana bu doon tey dem nga xooli beneen méthode yàlla mën na laa ubbil sa wërsëg ci beneen niveau ak ci beneen côté yaay mbaa xam nga leen na waaw tukki tekki am na waaye toog fii tekkee ko fi dafa am billaahi amee ah, xam nga xam xam nga instant bi li nga xam ni moom la sénégalais yi def euh, bu ñu demee foofu duñ ko def fii mhm. te amaana sax am na ñeneen ñoo xam ñu ngi jóge ci yeneen dëkk mhm. dëkk biir sénégal dafa liggéey liggéey yooyu ba noppi di ci tedd du jeex du xaaj xool xoola xoola gars yi jaay café mhm. xoola teraanga yi ñuy am ci jaayum café mais sénégal ci boppam moo bëgg tukki mais teraanga rek la ñu wuti mais nag jaar ci jaar ci fu fu baax jaar ci kaw jaww ji am kayit yu légal boo demee légal dara gënu ko am na ko fi def yàggul dara jël ay nit ne da leen di yóbbu Espagne ndeke fii am làmpi làmp ngor. sali kii ngor bi fa la leen wàccee ñoom ñëpp ñu koy. ku nekk jaxasoo <laughs> ba may dem Touba la may fàttali oto ba ñu jëloon sama premier dem Touba camion bi dañoo wërile ba ñu sonn mu wàccee ñu place de France bu Thiès ma ko may ma ndox ak xorom ma naan yow may ma ndox dégg naa day sax xorom. <laughs> beneen bi tam beneen bi xam naa mooy nekk bu ñu mm-hmm. laataa ñuy tëj. Mm-hmm. mu di benn sénégalais boo xam ne Argentine la nekk moom itam émigré la. Mm-hmm. dafa demoon foofu ci daan dooleem fi ñu doon jaay. fële leen policiers yi fekk ni leen jóge leen fa ci biir jàppante boobu benn Sénégal di résister pour ñu bañ a déplacer marchandise am ci lañ ko def à la George maanaam jël seen genou teg ko ci ndodd mi oh. ci ginnaaw gi ba muy yuuxu maa ngi asphyxié wu maa ngi ma sama nooy gi mi ngi aju mm. nañ defoon George Floyd ko bëggoon def mais yàlla wis na ci ndox mu sedd euh, dara jaru ko vraiment foofu la amee mais tamit ñi di sàkku rek ñi nga xam ñooy autorité sénégalaises yi nga xam ni ñoo nekk ci consulat yi nekk foofu noonu ñu gën di gestu sénégalais yi di leen jàppale ndax sonn nañ lool te bokk nañ ci ñi nga xam ñooy développer économie bu Sénégal mm-hmm. ndax imaginal tey jii koo xam ni day liggéey du lekk du lekk ci li li muy joxe mm-hmm. du tëdd ci lal bi muy joxe mm-hmm. du du du du du jëfandikoo ci courant bi muy bi muy fay du naan ci ndox mi du yendu ca kër gi kooku di daw ngir ay njabootam di ay sénégalais kooku jàpp naa ni Sénégal yi nga xam ne ñoo fa nekk te yor bokk ci nguur gi. Mhm. war nañ leen a gestu. jàpp mhm. leen te xam ni ay jàmbaar lañ. la ay jàmbaar lañ. donte sax donte sax gouvernement. Mhm. mu ngi ciy def lu am solo jox na leen douze milliards. donte sax xaj na si symbolique. mais tamit di gestu ñooñu xam ne ñoo fa nekk baax na di leen jàppale. ci wàllum këyit di leen dimbali. ku ci bëgg ñibbisi aussi ñu jàppale ndax loolu lu am solo la. nañ leen dimbali te xam ne dëbbalante mooy tax ab dog mook. macha beneen bi nag moom xam naa mooy kawteef Euh, benn waay daal moo moo dëkk fële Pikine Texaco. Mhm. mais bu xëyee euh, day jël paas dem ba Caaroy Caaroy mais bu demee ndekete la mu fay def mooy benn daam koo xam ne dafa am jëkkër. Mhm. buy sangu mu tegal ay birig di ko yër. di ko yëndu. voilà macha su demee daal da koy da koy yëndu ba mhm. xolom sedd mu dem ginnaaw bi nag ci la ay mbokkam bi ñu jëkkëram mooy mooy traversé noonu rek gis ñu tegale ay birig ci côté toilette yi. mooy xam nga boo xoolee Mali bi rek ni ñuy ni ñuy dëkkee. Mhm. voilà moom nag bu mu ko tegalee. mu xool voilà mu xool ni lii daal li ko yëndu jaral bari na. voilà mi noonu. <laughs> laaj waaja ca Thiès bu sama jëkkër demee bàyyi ma fa rek sama gan ñëw. bu may sangu rek nee na nee na moom dafa dafa dafa perte mel même dal di fël bunt bi waaye yow del de kay kay a ko <laughs> billaay doom <laughs> xamoo ki nga koy defanteel sama allah ji ñëw ma wax ko ko mu ne ma bàyyi ba bàyyi ba suba na ko defaat. Mm. ma bàyyi ko xel mbaw xëy dem liggéey waa ji ñëwaat waaye ba ba waaye deel tëj bunt bi man ko tey nga koy mujjee def. te la ko mm. mujjee defee. maa la wax lii. Ah, mais tey xam naa ni xam naa ne kii moom tey la koy mujjee def. ah waaw ndax ginnaaw bi jëkkër ji euh, xel ma teg ni am na kuy def lu ñaaw fii nii dafa bàyyi beneen jour rek mu waa ji dikk jàpp njaaxam toog taxaw nag di yër ndaw si. mu fekk ko fa rek jàpp dañ ko duma duma duma ba muy bëgg a dee ñu jël ko yóbbu ko police. da ko waroon màtt. voilà <laughs> da ko waroon màtt. kon mi ngi noonu voilà kon daal loolu tey moo dikkoon ci euh, kawteef bi nga xam ni mooy am ci émission boulevard du nekk Thiat. incha mm. allah ñu ngi koy jaajëfal Abdou Khadir boobu man li ma gën a neex mooy bu ñuy indee kawteef da koy toj ba mën a romb. bu pertinent macha allah mais waaw gis nga bu pertinent mais noonu la ñu nuyoo bu baax sunu sunu mag jooju Socé Ndiaye yàlla ko yàlla yëkkateeg jàmm moom mu daal di ñëwaat si ñoon incha allah Abdou Khadir Mboup ñu ngi lay jaajëfal. maa leen gën a kontaan di leen jaajëfal waaye itam bëggoon fàttali leen Sénégalais yi. Mhm. ñu ngi jëm ci tabaski. ñu mhm. tabaski ko wax xam ni saafonte. Mhm. ballonte àq. waaye dafa am loo xam daf ci am mu di mbas di coronavirus. Euh, di mbas moo xam ni dafay lore. te li mu gën a li mu gën a bëgg. moo di ñuy jagaantoo di saafonte. donte ñun Sénégal suñu teraanga lool la. nuyoonte saafonte waaye nañu fàttaliku mesure barrière yi. di raxasoo ak saabu ba mu set wicc. ñun ñu dëkk ci kaw gi. nañu am saabu di ko raxasoo bi yeeg yooyu noonu mhm. ndax teraanga Sénégal la fekk baax mhm. euh, di takk maski yi mhm. ñi nga xam ne ñoo jóge Dakar aussi bu ñu demee nemmeeku dara ci seen yaram nañu beru mettre seen bopp en quarantaine euh, woo ñi nga xam ñooy saytu wér gi yaram gi ñu mën leen a saytu ndax dafa am lu ñu sas dañ ñi bu ñu jógee ci tabaski bi cas coronavirus yi dina yokk waaye Sénégal dafa xam dafa man relever défi mhm. defi la ñu lancé mhm. nañ ko relever ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci réew mi mhm. te lu wokk ma sàmba xuri ma demba voilà kon daal ñu ngi leen di kii lool waaye itam di souhaiter un joyeux anniversaire à Abdou Khadir Koulibaly nekk suñu collègue nekk aussi suñu grand bu baax di ñu tette ñun ay ndaw lañ mais daf ñu woon euh, vraiment euh, le bon chemin à emprunter voilà merci beaucoup ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax Abdou Khadir message bu am solo la fi bàyyi wax dëgg yàlla kenn ku ne war na koo bàyyi xel respecter les mesures barrières ndax coronavirus mi ngi fi te jeexagul yàlla na ko yàlla defal tawféex moom mi te li mu bëgg mu yeggale ko ci barke Seydina Mouhamed bu baaxee dañuy ñëw rek nag daal di dalal sama rakk jiir yaa jàlloo macha allah daal di waxtaanee nag suñu thème bi nga xamante ni tey dañoo bëgg a waxtaanee lépp ndax xam naa ne